ay Aïcha mi ngi noonu actualité yi sawpulo ah, ñu daal di ci ñëw euh, très rapidement. Euh, tey journaux yëpp euh, riche en actualité. mais ah dañu koy dooree ak Libération ah. Mm-hmm. Libération parce que ñoom def nañ lu am solo ci seen une. Mm-hmm. rapport 2016 2017 2018 et 2019 de l'IGE alors au banquet des magouilleurs rapport yi daal sawpulo 2016 ba 2020. amul benn rapport bu IGE def boo xamante ne nii duñ ci gis ay ay njuuj njaaj ci ci biir tudd nañ ci ay entreprise yu bëree bari bari ARTP mi ngi ci ah <laughs> FERA mi ngi ci ñoom chargé à l'essieu réew mi daal soppu la foo laal rek ay njuuj njaaj ñoo fa am. non partout même ci mbaam yi quoi je suis nit mënul soxree nii quoi nit mënul sadik à ce point là pour faire autant de mal à à à à borom mbakken. Mm. kuy nooyi quoi. Mhm. nga nga nga teg ko gis ngeen nombre de gouttes yi ma gis léegi nii. Mhm. ñu ngi ko tegal ci affaire bu mënu ko téye. Mhm. yaa ngi imaginer mbàqu mbaar bi ak faar yi nu mu waroon méttee bu mënoon yuuxu moom mbaam bi su mënoon jooy yuuxu kii fu mu jëm waajoo kii kii def lii ngeen def ni kii mais ana yàlla dans l'histoire dafa metti c'est dégoûtant dafa metti ndeysaan c'est c'est baal baal ko. baal ko ñu baal ko ñu jàll ci mag yi ñuy c'est c'est waaw yow. nga defoon dina màgg màgg dina màgget màgget bu baax. <laughs> Hmm, ki def lii dina màgget màgget bu normal. màgg quoi màgget. <laughs> normal addunaam normal mu mu muy tegle ay tànkam yor ay sëtam kii kii lii dina ko dal. doom day. Hmm? yaa ngi imaginer faaru mbaam bi faar bi ak nu mu ko yëkkatee noonu. affaire bi mu mbaam bi mu waroon mën a yuuxu rek doon nit. am am am métit quelle honte si suis dégoûté. ceinture yi ñu fay yeew. baat bi day mel da koy xoj. Ah, ceinture bi ñuy yeew ci baat bi. ci mbaam bi su mbaam bi yéegee ceinture bi da koy dootu mën a nooyee. war a yuuxu quoi mënul yuuxu am am lu ko métti moom te ah, moom mu taxaw ah c'est c'est waaw yow kooku dina màgg ba ba ba tranquille ci piliyaanam ak ay sëtam. c'est pas possible. ngir yàlla bàyyil kii mu ngi gisee waay euh, tey ñii waa ji def mbaam yi suñu njiit yi ñii lañ ñuy def. c'est ça ñii lañ ñuy def. c'est pareil yërëmuñ ñu bëgguñ ñu. ñii lañ ñuy def c'est pareil avoir quatre-vingt-dix euh, am auto euh, quatre-vingt-dix millions. merci quatre quatre quatre quatre quatre-vingt-dix millions. ñu toppante et eh bien pendant ce temps-là la population crève la dalle. dans les dans les dans les. di fayeeku di fayeeku benn benn benn deux millions. c'est pareil benn deux millions par mois un ministre buy fayeeku benn deux millions par mois. ñu toog benn benn benn une semaine deux semaines nga nekk milliardaire. une semaine deux semaines léegi ci lañuy ñàkk ñoo ah, ñàkk ñoo yërëm boobu noonu moo war li libération euh, def Aliou Sow hmm. man daal ñu euh, ñàkk ñoo yërëm boobu moo waral libération def li gisee yu du <laughs> moom mbaam bee ko jàpp fi mu nekk nii coro tooñ nga am <laughs> <laughs> euh, lu am importance mag yu yooyu ah ay ay waay soixante-dix-huit employés fantôme au ministère de la culture yow yow ay employé Fatou waaw sa xaalis la yow. yoo xam nga maa ngi koy wax ba ci dem bon xam nga boo jëndee essence. yaa ngi dégg boo jëndee essence benn litre essence six cent et quelque lay jaar quatre cent francs yëpp ay taxe la. Mm-hmm. exemple la nga jënd essence nii wala nga bugg carte grise wala yu demee noonu taxe yu dul jeex lañ lay defal xaalis boobu la ñuy dajale pour yóbbu ko ndax au trésor ndax nguur gi am. lu mu dundee ak nu mu fonctionner xaalis yooyu li ñuy jël di ci def yii ngay gis ni parce que ñooy constitué ay budget ñu tas ko ci ministères yi gars yi war a def seen liggéey presque un milliard à l'agence nationale de de comment dire cette agence là de la recherche appliquée. ARTP là wala. non non ah, ANSRA. Ah, mhm. agence yooyu presque un milliard. Mhm. neuf mm cent Mm-hmm. yoo xam ne amul benn justificatif mm-hmm. mais c'est pareil que mbaam bi ah parce que xaalis boobu amaana boo ko dugaloon ci yenn béréb yi mm-hmm. ci yenn prise en chargi am na ñoo xam ne dinañu faju am na ñoo xam ne xëy na dinañ def jalis ba duñu dee parce que ce n'est pas de leur faute bon mbaam bi lii dañ ko dañ si teg suñu bët mais en réalité am na loo xam ne chaque jour ñu ngi koy dund dans ce pays la est-ce que à un moment donné ah euh, est dëkk bi dinañ jóg ñu ne dinañ ko changer par force waaw wala déet est-ce que sénégalais yi da ngay war a bàyyi lii muy continuer plus de cent millions à l'ANAMO agence nationale de euh, xaw ma lan euh, xaw ma de la maison de l'outil ak yi demee noonu de l'outillage bu Maodo Malick Mbaye hmm. ay plus de millions yoo xam ñu waroon ko du mu doon ay waroon nekk ay dépenses d'investissement ñu yóbbu ko ci ay dépenses transféré ko ci ay dépense de fonctionnement mais fonctionnement dans quoi loolu kenn du ko corriger voilà ce pays après ils disent Alioune laa fu nekk ni da damay muñ pour bañ a yuux mais j'ai très mal pourtant mënuma ci dara laa ci mën c'est dégoûtant ce pays-là il faut le changer ce pays-là il faut que ñuy sanctionner ce pays-là il faut que ñu mettre ko en ordre mais pour tout ça eh ben il faut changer euh, gazel gazel koba bi 60 millions lay jar Abdou Karim Sall fan la ko jëlee pour Sénégal moo ko moom seen ranch yi ngeen am noonu ranch yi nan ngeen ko amee Abdou Karim Sall combien vous gagnez par mois qu'est-ce que vous avez comme patrimoine yow parce que da nga yor sama alalu réew sama réew da yor alal dañ la am lu ñu la dénk alal bi fan nga ko jaarale yow ministre de l'environnement booy def lii mu feeñ ay kéwél ñu xaw ma kéwél xaw ma koobaa ñu leen di indi guddi di ko laax amaana bu deewul woon kenn du ko yëg da nga ñëw dugal ko ndànk ci sa ranch kenn du xam yow ak say njooñ ñi nga xam ne jox nañ leen trois ak yooyu ñun seet seen tour est-ce que est-ce que vous pensez que ni yow Abdou Karim Sall yow da nga fi waroon toog nii yow yow war nga def vingt quatre heures yow ci sa nguur dans un pays normal un pays d'éthique un pays bu jub un pays bu jullite un pays boo xam ne nit ñi li ñu am donte as tuut la dañ ko war a séddoo gën a góorgóorlu mu gën a yokku ndax nga réel gën a mën a am est-ce que vous pensez que ni tout ce que vous voyez la ces gens là qui sont en costume cravate ñor si ay 4 x am ay ay ay ay bon d'essence am alal am ay avantages di dem ay séminaire ñu leen dugal ci avion yi ñuy dugg en business class loolu yëpp alal ñun waruñu ko tal parce que en réalité euh, euh, xaalis boobu waruñu leen ko jox ñoom parce que yéen vous avez choisi de travailler pour votre pays vous avez choisi de vous sacrifier pour votre pays est-ce que vous avez le droit franchement di ngeen di nangu ñuy jël alal boobu alors que pendant ce temps-là les populations ñoom dañu xiif dañu sonn dañu feebar mais mu mënuñu faju mais mais est-ce que vous savez que au Sénégal de 1500 l'autre jour keroog réew mi quotidien moo ko 1500 nit ñoo xam ne dañu am problème mu xool te mille yi dinañu dee balaa at bi di dee mille yi dinañu dee avant at bi di jeex. <laughs> est-ce que vous pensez que ni c'est normal chers Sénégalais qu'on accepte des choses pareilles est-ce que loolu boo defee une comparaison Aïcha ak mbaam bi. ak mbaam bi nu muy souffrir nii est-ce que mbaam bi nu muy souffrir nii les autres sénégalais nit nekkuñu di souffrir dans les banlieues parce que mais mais am na ko toog nii bëgg faju biiram di metti am na ko toog bëgg faju wa mënul def ki euh, piqûre insuline parce que amul xaalis bi man gis naa ku ñëw di ma laaj mille fajar nii semaine dernière 36000 mu ni def ma leen xaar sama buntu oto 36000 francs sama oto mu taxaw di ma xaar mu ne mu ne mu ne dafa dégg ni damaa baax mais ce jour-là mais man aw ma 36 000 30 000 laa amoon mais dafa ne parce que dafa indi kayit bi j'ai vu l'ordonnance euh, pour mu def parce que bu deful insuline bi parce que il faut mooy loolu ñuy piqûre nga koy piqûre ja di ko piqûre pour mun a réguler réguler taux de sucre bi loolu daf ko waroon dem jëndi est-ce que vous pensez que ni kooku moi je suis ministre de la République kooku dinaa ko bàyyi di ko seetaan ak ki ma gisul ak ki taxawalu ak ki ma ki xam ne mënu ma dajeek moom ki mm-hmm. nekk buntu hôpital bi mm-hmm. di xaar am yaakaar seet am mun a dajale weccet ak kooku jëkkëram mi ngi toog di xaar pendant qu'elle souffre mu dem wuti ko jéem xool mbokk yi est-ce que vous pensez que dans ce pays la ces gens ceux qui nous ñoom waruñu jël ay priorité si nit ñooñu mm-hmm. dimbali leen kese parce que ay nit lañu parce que ay doomu aadama lañu dañoo toog suñu di ñu jàmb instant yi Aïcha Aïcha am solo trop trop trop mais gis na si si rapport IG yi xam naa ci nga ci nga gën a nekk tey génn nañu rapport euh, quatre années muy 2016 ba ba 2019 li ñu gis moom mooy ne que tey même ba rapport 2016 bi génnee woon mooy bi polarisé woon 2014 2015 bi sax dañuy gis ni que yooyu yëpp amul benn suite. Mhm. amul benn suite comme quoi que le président même moom la ñuy jébbal rapport bi te moo koy teg ci tontom. Mhm. bon waxoon na fi ne dootuma tegati sama. ci benn dossier dañ koy jël tasaare ko képp koo xamante ne taq nga ci li nga wax ba mu leer naññ mais loolu bon duñ koy ñun duñ koy gisee en tant que euh, askan bi dañu jàpp ne peut-être loolu parole politique la woon muy mujjul fenn mm-hmm. euh, tey rapport yooyu yëpp mu ngi ci tiroiru président te gis nañ ñi nga xam ne tey ji pointé woon nañ leen du doigt mujjul fenn ci ci ci processus et li ci gën a garaaw moom mooy nekk tamit euh, même bu fekkente ne nii rapport bi génn sax amul sens ci bi nga xam ne bëgg na mu leer parce que ci président lay dem il faudrait que organe de yooyu noonu mën a am seen indépendance bopp bu ñu mhm. paree rek dañ koy jébbal procureur mhm. mu auto autosaisiru mais pourquoi jël rapport rapport boo xam ne da nga cee ay ñooñu président nga jox ko président. Mhm. mais xam xam lañ ko président bu ci amee. Euh, euh, xam nga loolu pour solution pour solution parce que as ah, li ngay wax nii ah. li ngay wax nii ah Mbaye Laye bi jàkkaarloog man. ëllëg bu nekk président de la république mbaylaay il fera la même chose. léegi benn solution moo am. et je le dis franchement depuis 2007 il faudrait que ñu revoiraat la constitution du Sénégal mm-hmm. il faudrait que il y ait une séparation rigide des pouvoirs waxuma séparation normale man waxuma séparation normale tubaab laay laak xam ni ñu koy waxee ci olof mm-hmm. mais ce n'est pas une séparation des pouvoirs moi je voudrais une séparation rigide des pouvoirs pour ceux qui m'entendent et qui comprennent ce que je suis en train de président am yoo xam ne waru ko téye IGE warul nekk biir présidence de la république mhm. ça fait quatre ans que IGE génnewul rapport pourtant yoon dafa ne at bu nekk IGE dafa génne rapport et président tenir compte de ce rapport là pour réorganiser sa politique mhm. pourtant ça fait ñeenti at un pays qui fonctionne normalement qui existe depuis une soixantaine d'années ce pays là warul toog ñeenti at IGE doon doog a sans compter tous les scandales mhm. que Moustapha Cissé Lo est en train de dire parce que mi ngi préparé ay audio parce que IGE génn na génn na rapport de l'OFNAC Nafi Ngom Keïta dàq nañ ko boo moytu aussi yeneen Lo am na audio bu mu def boo xamante ni génnagul waaye boo moytu bés bu génnee euh, loxo dina dal génne Cissé am na lu mu waxoon wax na wax na wax wax na wax na yaa lekk suufu bi de te bii daf see. war nee na Fatma Ngom yow building administratif lekk nga alal ba de. Mm-hmm. nee na Sénégal ay ay jaaykatu drogue ñoo fi nekk de. Mm-hmm. nee na Sénégal ay blanchiment ñi ngi fi de waa léegi. waa léegi pardon. Euh, xam nga dañ fiy waxoon que ñu ngi xaar Cissé Lo te Cissé Lo ni ñu koy xaaree noonu la ko population bi yëpp di xaaree pour mu génne yenn yoo xam ne nii dëxañ na ko ci ci boppam mhm. te am na ci xolam ba mu bëgg koo euh, ñu ngi dégg ay doomam jël nañ li nga xam ne ni moom moo di confisqué nañ ay téléphone am denc ñu ngi koy yóbbu pour mu noppali et am na ñoo xam ne ni ñu ngi xalaat ci seeni xel ñu ngi koy euh, ruum ruum daat mhm. nee nañu ba ñu jógee ci Cissé Lo ci ay doomam nañ dem mhm. pour di gor seeni yel di leen jëndaat pour ñu noppile noppiloo seen papa li laay war a sóole doomam yooyu nañ ko bàyyi mu wax mhm. ndax politiquement moo tax muy wax te it la muy wax dina intéressé ñi nga xam ne ñoom ñoo di askan bi bu fekkee ne ñoom li ñuy woote rek mi ngi ci ñoom mhm. seen deretu baay mi ngi ci ñoom mhm. nañ ko bàyyi li nga xam ne ni moom la bëgg a wax mu wax ko li mu bëgg a def mu def ko ngir ñun tam ñu daal di am ngindéew ci loolu dara doo xam nga xam nga rapidement am na lu am solo loo bëgg a wax dafa dafa mel ni am nga ngeen toog fi nii benn moo wax leen euh, ak Farba Ngom euh, euh, sa maison boo xam ne tey boo ko joxoon mu sànq fi wax ci petit déj ni que tey boo ko joxoon un milliard du la sax faale. Mhm. Mhm. mais Farba Ngom fan la jëlee alal. mais Sénégal mais Macky Sall président franchement. borom pousse-pousse ba. mais mais mais mais. waaw lii la ñu ne mooy kër foofu kër moom la ñu moom la nee nañ moom mhm. mooy kër Farba Ngom. ak ay oto yi taxawaalu. oto yi ñu bâche ci mais ngeen defi nii yëpp yéene naa la ko. mais Farba mais mais fan nga jëlee fan nga alal bi yëpp. est-ce que yow Farba Ngom ci fukki at war nga mën a am lii yëpp ci Macky Sall yow war nga mën a am lii yëpp pendant que sénégalais yi ñoom amuñu dialyse pendant que sénégalais yi mu mënuñu mënuñu nga rangale ay oto nii yow Farba Ngom est-ce que est-ce que est-ce que franchement yow yow sa yaram dawul Macky lii boo ko gisee président lii lan nga ci war a mën a wax au-delà des insultes de Moustapha Cissé Lo au-delà des critiques de Moustapha Diakhaté est-ce que vous pensez que ni monsieur le président de la République lii c'est normal wala vous trouvez que ni dafa am un Sénégal des Sénégalais d'en haut et des Sénégalais d'en bas. ñaari kër la de Aliou Aliou Sow. mais mais mais mais mais mais mais président Macky Sall man bëggoon naa nga wax ma lan nga xalaat ci Farba Ngom. Mhm. est-ce que parce que quand même il faut nga wax ci parce que yow yaay suñu jiit yow yaay le père de la nation. Mhm. vous ne pouvez pas regarder ça nit di ko am ci juróom-ñetti mais lii ak ay oto yu tegle nii mais may man euh, euh, mais man mais man man coxo man yéene naa leen ko mais man yéene naa leen ko parce que parce que parce que boo liggéeyee mais mais boo liggéeyee boo liggéeyee nga am ko Aïcha euh, mais mais mais grawul nga def fay say impôts et cetera mais mais mais mais mais quel est votre patrimoine mhm. Farba Ngom ban société nga créé mhm. yow lan nga député simple nga mhm. waa xaritu Macky Sall nga waayam nga géwélam nga mais mais lan nga def ba am lii yëpp lan lan nga def est-ce que xalaatoon yi am na ay sénégalais yaa ngi may wax ko Bin Fall. Mhm. Bin Fall ay jëndee jaay. kiim la yor gargotam la yor. Mhm. war na mën a alal boobu li mu ci gagné mu ngi ci toppatoo ay doom fayal ci ay école mhm. mais Bin Fall mérité wul DER jox ko alal. waa DER am na lu ñu waxul ci scandale avec la DER. la délégation. Euh, euh, délégation à l'entrepreneuriat euh, rapide. lu ci waxul ci scandale fi tey jii nii il faut aller acheter Libération ah bravo Cheikh Mbacké Guissé. nga def ni lii c'est normal. Mhm. mais mais mais quand même mais munoo mais président la République di seetaan lii. Mhm. gars yi mais Abdou Karim Sall li mu mais mais mais war a toog 24 heures éventuellement pour faire quelque chose. Mhm. léegi mais mais bu doon dans mais dans les 24 heures mais Abdou Karim Sall président de la République dootul nekk ci ministre de la mais de surcroît mu nekk de l'environnement waroon aar gàncax gi. waroon nga bi waroon waroon couvrir waroon waroon ñu protéger suñu réew protéger suñuy suuf protéger suñuy garab protéger suñuy kebel suñuy xar suñuy nag tout ce que vous voulez moom loolu moo doon joobam mais moom il a donné un mauvais exemple il a pensé à lui il n'a pas pensé aux Sénégalais pourtant il était parti pour travailler pour les Sénégalais parce que ministère bu mu yor